commencement lu yàggul dara gisoon nañ fi en 2012 grève yi euh, na ba ñuy wax waxu euh, année blanche amaana même bu fekkee dugguñu ci euh, en 2014 2018 ba tey 2019 ñu ngi gis ne que tout le temps lu ñuy xeex mooy le non respect des accords signés alors tey jii pourquoi gouvernement war a signer ay accords bu fekkee xam nañ ne que peut-être matérialisation accords yooyu ça pose problème. <laughs> déglu naa euh, mbokk yi fi jël kàddu ku ci ne li nga wax kenn mënu cee dindi dara dañu kon war a weesu sax xëy na affaire engagement yu ñu signé respecté wu ñu nang dafa gën a xóot maanaam euh, réew mi dafa am ñu ko yilifa muy tubaab yi ak yeneen réew ci Afrique école bi ñu fi tegoon dafa am lu taxoon ñu teg ko pour mu di leen ko jariñ ñoom en tant que colonisateur ecole boobee ba tubaab yi demee ci li ñu wax ba tey fentaatuñu ko xalaataatuñu école bu màndaxe bu dëppoo ak li réew mi soxla du fii rek yu réew yi nu wër yëpp euh, boo ci loolu boo ci doxee juróom benn fukki at da ngay am problème donc mënatunoo dem amatunu école noo ngi koy wax nag école noo koy wax parce que xale yaa ngi sol ay tenue ñu ngi jàngi maître yaa ngi professeur yaa ngi fi waaye école amatu fii du rekk école la paan ma maanaam maanaam toujours damay faral di joxe exemple sama xaritu mécanicien bi mm-hmm. su waa ji ñëw ñot ñot yi oto ñëw dugg ne ko sama xaw ma pompe à essence loo xaw ma mu ne ko waa ah, dugalal gaare mu romb mu ne ma kii paanul pompe à essence oto la paan <laughs> nun réew la nu paan côté boo jël rek côté boo jël du dem et puis wax ji man naa bari comme euh, je crois que professeur moo ko doon wax léegi slogan yi <laughs> slogan rek plan Sénégal émergent boo ne plan Sénégal émergent li wane ne du lu ñu fent du lu ñu toggal suñu bopp am na Gabon émergent am na Cameroun émergent kon mu mel ni benn place lañu ñu togge loolu lépp ku nekk ñu yàkkal la du sotti vraiment du sotti euh, euh, euh, Muniru Muniru Muniru Muniru nee na du caageenu contre comme etc non wax dëgg da ngay wax dëgg rek man na nag di nax suñu bopp fii mu ne école bi c'est conçu comme c'est perçu comme un boulet gouverne pour gouvernement bi école bi boulet la maanaam maanaam euh, euh, poids bu diis a diis ñu takk ko ci sa tànk nekkul opportunité mhm. pour am développement ci réew loolu mooy mooy mooy jafe-jafe syndicat yi foog ñu euh, soutenir leen encourager leen mais lii du seen xeex ñoom rek ah non non non non lii xeexu sénégalais yépp la parce que su école bi doxut mais do suñu doom yi uh-huh. du ñu am xam-xam bu ñu amul xam-xam réew mi du dem uh-huh. donc vraiment euh, sama wax du ci mën a bari trop uh-huh. parce que euh, li ci amoon solo wax nañu ko je crois que li léegi li ci des évidemment mooy accentuer pression bi ci gouvernement bi pour que au moins mu régler <laughs> li mu amel enseignant yi daal mais mais mais mais moom même bu defee loolu ba enseignant yi amatuñu benn problème mu ay salaire ak ay indemnité ak ay yooyu ba loolu yëpp féete boor itam du tax école bi mhm. mhm. euh, rek si la ñuy yi nga xamante ni joxoon nañu ko Big Togo pour mu defaral ñu li nga xamante mooy université Amadou Mahtar Mbow. Ah. université bu ñu waroon livré depuis 2017. université boobu tey jii gisatuñ ko xeer yi peut-être nga fay fekk ak ay ay maçon yoo xamante kenn nekkatu fa nanguwaat nañ ko ci biir Togo te ba tey waxaguñu li nga xamante ni moom mooy situation bi defuñu information judiciaire waxuñu xaalis bi fan la dugg waxuñu dara loo xamante ni mën nañ ko mën nañ ko mën a jàpp liggéey <laughs> nañu <laughs> fi amalaat euh, beneen débat bu gën a yaatu wax ci euh, bu baax a baax parce que euh, y a énormément de choses à dire par rapport à ça donc ci noonu la jàllee ci meurtre kii di euh, Fatoumata Mactar Ndiaye donc gisoon nañ euh, nekk euh, kii di Samba Sekou Dia Sow kon condamné nañ ko woon à une peine de travaux forcés à perpétuité donc dañuy dem jëli élément bi avant de revenir sur le plateau verdict ba daal dinaa wàcc Fatoumata Mokhtar Ndiaye ak ko fàtt di chauffeur am di Samba Seeku Sow moom nag daal dinañu ko rek tëj a perpétuité ak liggéey te doo sañ a bañ bokk na ca la nga xamante ne yi moom lañ ko rek daal di toppee muy nag tentative de vol toftal ca ab faat bakkan te yor arme boo xamante amul autorisation administrative bu ñu sukkandiku ci juge bu chambre criminelle bu tribunal bu grande instance hors classe de Dakar fee yi la muy wundu bokk na ci ab intention homicide daka noonu préméditation maanaam nag loo xamante ne rek dañu ko préparé mu mel ni bu ñu sukkandikoo ci magistrat bi nag jàpp na ni agression bu ki nga xamante ne moom moo di aadama Adama ba di doomu rek conseillère économique et sociale bi li nga xamante ne la ñu koy toppee ba tey ci loolu bokk na ci tentative de meurtre bu ñu sukkandikoo ba tey ci juge bi mu mel ni chambre criminelle bi nag la mu sàkku moom moo di rek mu daadee jox lu toll ci téeméeri million ak genn genn comme dommage ak intérêt toftal ca it lu toll ci ñaari téeméeri million yoo xamante ne da koy jébbal njabootu faatu Fatou Oummata Mactar Ndiaye mu mel ni nag ci fàttali la nga xamante ne moom moo di rek faatu ba ñeenteelu vice présidente bu conseil économique social et environnemental fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2016 la woon ci biir néegam ci Pikine Ndour voilà donc euh, li mu nekkoon euh, élément wu euh, meurtre bi bu nekkoon loo xamante ne quand même Abdoulaye Mbow doyoon na waar torop coow bu bëri juboon si ñi di wax sax waxu peine de mort mm. insécurité en tout cas ñu dénoncé ko bu baax a baax Abdoulaye fii ci waaw honorable dafa mel ni yaa tëj actualité bi waaye bii dañ koy ubbi waate ak yow jëm si li nga xam ne mooy faat bakken bi nga xam ne faatu nañ ko jigéen ji nga xam ne nday la Euh, bàjjan la euh, euh, sër la rakk la mu am koo xam ne ni danaan jëngu si wàllu politique ñu ràññee ko ci woon bu baax tey jii nii Sénégal ñu jàpp ñu walla ñu gis nii la ñuy faat bakkan bari la yow nga nekk nekkal ndaw askan wi fële si penc penc penc penc ndaw réew mi di assemblée nationale donc honorable député ay say ñoñ ak yeneen kilifa diine ak ay euh, yeneen député euh, yàgg nañu suscité débat boobu est-ce que yow da nga ànd ak si li nga xam ne ñu àndiwaat fii si Sénégal li nga xam ne moo di peine de mort parce que débat boobu depuis ay quelques années ñu ngi koy soulever. <laughs> waaw euh, question la bu am solo mais man defe naa ne. ba tey daal génn gunu ci. ndax bu fekkee jafe-jafe dafa bare di jalu di jalu di jalu di jalu. au lieu nga seet reen ba la indi jafe-jafe yi nga nga buddi ko ba nga xam ne parce que garab goo xam ne day meññi naqar nga ne magor car yi no garab guy meññi naqar ak tiis ak toroxtaange da nga koy buddi euh, ñu ne waaw nañu indi peine mais <laughs> peine de amoon na fi Euh, taxuloon euh, euh, violence jóge fii boo indee peine de mort delloosi ko te société bi feebar ñun nii société sénégalaise dafa feebar fajoo ko da ngay yokk rek maanaam kii rey na ñu fetal kele rey na ñu fetal de bis bu ne nga fetal rek waaye du tax mu deñ cest à danoo war a faju ay faju bi nag lii proverbe guinéen bi di wax le pour pourri par la tête maanaam il faut que njiit yi rawati nag ki nekk ci bopp réew mi mën a yoon ba pare jiitu ca la pédagogie par l'exemple mm-hmm. loolu su amee euh, jafe-jafe yi dina wàññeeku bu baax a baax a baax bu ko defee problème dinañ ko man di régler tekkiwul ne am si dina am waaye base su problème yi dootul nekk benn. bu boobaa dinañ ko mën a faj xam nga ne lii euh, tiis na trop. Mhm. mais bis bu yàlla sàkk mi ngi am. Mhm. li nu yëg ak li nu yëgut ba kañ. Mhm. moo tax euh, euh, sorewut teqalikoowut ak li ñu doon wax léegi ci école bi bu nu jógee ci lii wax leneen du teqalikoo ak lii nuy wax léegi lépp dafa likkalikoo vraiment état la. boo xam ne euh, ab situation la boo xam ne euh, moo tax ma damay wax ne euh, c'est une révolution mhm. qu'il nous faut mhm. c'est-à-dire il faut parce que lépp fii la une révolution mentale Hein? Une révolution mentale, comportementale. Voilà, une révolution surtout des idées. révolution superstructurelle mhm. ak révolution infrastructurelle <laughs> voilà mu ngoog en tout cas leer na nañ alors euh, justement Pape Makhtar du ñu yeewu bés sans pour autant lire ci journaux yi ne que telle ou telle personne a été euh,